yéen kaabi di libération ne ab bateau ngi ni ñu tegoon ko loxo ca port di AKT1 waye gogule bateau mo jékki-jékki reer mer kenn séenatu ko ci waxu ndakaaru ba taxna libération ne kayitu kalaame jibna na ca booba njàng meeg njàngale mi ma nga ca guuta libération dal di may xamal ne ngir dor UCAD mom yon joxu ko deug ci ñetti étudiant yi nga xam dakk nañu leen ci université ba yon nee ko ñetti étudiant yi nan wat njàng mi en attendant avec libération pour terminer le journal révèle sommet de réintégrer trois étudiants exclus l'UCAD eh ben l'UCAD désavoué par la justice et la la mais dong dong de ci fuñu bon vive le Sénégal je ne di libération ne ab bateau ngi ni ñu tegoon ko loxo ci port di AKT1 waye gogule bateau mo jékki-jékki reer mer kenn séenatu ko ci waxu ndakaaru ba taxna na libération ne kayitu kalaame jib ca boba njàng meeg njàngale mi ma nga ca gouta libération dal di may xamal ne ngir dor ikat mom yoon joxu ko ci ñetti étudiant yi nga nañu université ba yoon na ko yi nan mi en attendant avec libération pour terminer le journal révèle sommet de réunion intégrer Trois étudiants exclus. Lucad, et eh ben Lucad, désavoué par la justice. Et là, mais a tu donc, mais a tu donc, Bon, vive le Sénégal.